di leen sargal waaye tamit di leen jaajëfal yéen ñuy teewlu ci Equivox TV mbokk yi dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñu koy dooree rek tolluwaayu mbasum coronavirus tey ci talaata bi ci 1273 tests ya nga xam ne rek amal nañ ko 100 ñoo ci jot a positif ci 100 yi nag ñu ci am rek 42 cas contact 58 cas communautaire ak 8 yoo xam ne jot nañ cee ñàkk seen bakkan 241 yoo xam ne faj nañ leen ba ñu wër. ginnaaw ba ñu amalee seen manifestation yi fële ca centre ville bu Dakar kii di Dame Mbodj ak Abdou Karim Gueye xurum xaq dal dinañ am rek liberté ndege ni démb

li ki xam ne li ni mel nag moo Ba ki nga xam ne nag moo di syndicaliste bi di dàmbooji rek ñooñam ya nga xam ne ñoo bokk ci g ñoo ko daal di xeexal rek ba décrété woon nag li nga xam ne rek moo di grève bu 24 heures nege ni démb di exiger rek li nga xam ne moo di libération ba tey rek ci mbirum activiste yooyu ki nga xam ne nag moo di Clédor Sène ak Assane Diouf doyen des juges daal dina leen placer rek sous mandat de dépôt nege ni démb ki xam rek nag moo di avocat bi maître Khoureyssi Ba ca page Facebook am ñaari activiste yooyu nag ñu leen doon toppee rek li nga xam ne moo di association de malfaiteurs provocation au crime et délit organisation d'un mouvement insurrectionnel. ba tey rek ci mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr ki nga xam ne nag moo di président Pastef di Ousmane Sonko juge d'instruction bu huitième cabinet daal dina ko convoqué ne ni suba ci. bi ki xamle li ni mel nag moo di maître Ba ca page Facebook ginnaaw rek ba mu amee ab bàyyi ba ndëganiku ba baag léegi rek def weer ki nga xam ne nag moo di Boubacar Seye ba léegi nag yaramam dafa daal di sutante ñi nga xam ne nag ñoo bokk ci ONG Horizon Sans Frontières te Boubacar Seye jiite ko daal di nañ lancé rek ab cagnotte ca sénégalais nga xam ne ñoo nekk fële ca diaspora ngir rekk indi ndimbal ci ki nga xam ne moo di Boubacar Seye carte yi nga xam ne rek nag moom la ñu jagleel ñi nga xam ne ñoo di taskatu xibaar yi mu mel nii rek dina yemb ci weeru juin ki xamle li ni mel nag moo di président wu commission nationale de la carte de presse di Daouda Mine lam ca teg nag moo di dépôt carte yooyu dinañ ko dool rek fukki fan ak juróom ci weeru mars. jërë ngeen jëf mbokk téléspectateur Equivox TV fi la ñuy daal di yem ak ci xibaar yi di leen jox dig daje ëllëg incha allah.